Hallo. Hallo, asalaamaaleykum. Aha leen xaftaan yi te lii yëpp Gàmbi lañ ko ñawee yërey Gambien la am ak yërey yërey sénégalais yii Gambien moo ko ñëw di ko jaay Gambi soo ko jëndee yaa ngi promote business yi Gambi yeneen yi comme bu ma sol nii soo ko jëndee yaa ngi promote business yi Sénégal pour julli gi suma baat bi jéggal leen na ma xewoon tëddaat li ma miin xewu fajar ci weeru koor yi moo tax foo gudd de moo sut sax bu doon suma bos la fa may sut bii waaye different size la am na yu gën a gudd bii sax am na yu gën a ndaw bi blue bu nice la të pis bidis, të neh, të noj, të for. Moj bi. Të bëjëm gjeni ni. Të njew bi fa ba, të rafet. Të oru, të lipin, të profesional. Aha. Aha. Du ñëwi cala cala de. Ñëwi profesional bu baax, të for, të rafet. te tubéy ji gudd enleem fi mu ñëw ba ci suma kaw ba ci suma ron dënn bi ba ci wàcc ba suma tànki soo ko solee nga xëcc fii takk beautiful dafa ànd ak zip fii nga ubbi sa zip zip bu baax bu dëgër bu seer la si def duwul zip yi Afrique yi yomb yi de original ñaw ñaw yi design na dëgg-dëgg jigéen bi le Aïcha ñaw design na dëgg dëgg dëgg gis ngeen ko Gàmbi la ne waaye liggéey bu baax a baax a baax a baax la xame ñawkat yu mën a ñaw te xam la ñuy def la xame ay couleur couleur laa si am ku bugg rek na wax ma jox ko suma numéro mu bind ma léegi yow boo boo gisee boo bugg en seerut ñëw yi yenni yenn yi eighty five pound la yenn yi eighty yenn yi seventy dinaa la woon different one léegi yow boo bugg nga koy nataal soo paree nga yónnee ma ko danaa la jox suma numéro soo ma yónnee nataal bi nga bugg wala nga bindal ma fii ne ma dis nga wax kolo bi nga bugg su ko defee man danaa ko bind waaye ba tey nga ma war a call whatsapp su ko defee nga jox ma sa adresse nga fay ma yónnee la ko ah bii ah wert bi ni mu rafetee rek bii moom loxo yi dafa simple waaye wert bu rafetal rafetal rafet la te gi nga ñëw bi nu originale lii sax maa koy jaayee loolu rek ndax bu ko wantee si julli gi xam si barke weeru koor waaye lii hëpp na loolu lii piis bu diis bu baax bi la te ñaw bi du caaxaan te indi ko fii du caaxaan lii hëpp na 85 pounds fa ko hëpp bay jéggi dayoo xamoo loolu waaye man maa koy jaayee loolu rek parce que kii du calaa calaa ñëw kat tubéy jaa ngi nii moom tam wàcc ba ci suuf bës leen vidéo bi te seddoo ko ngir yàlla gi ngeen tubéy ji ni mu guddee maanaam fii la may xem daal fekkee rek ne bugg naa mu xem suma tànk ni ko noonu fii la tubéy ji xem soo góorloo njool njool masha Allah lii dina la gi nga ñaw original gi nga si biir niñ ko def proper ñaw mu am zip moom tam nga xibbi sa zip ba pare takk sa gaño ba dëgër nga jàpp sa bopp ñëw yu rafet ta rafet ak original sa baax ana leen bii rek bii moom mooy pour ñi nga xam ne bugguñ bugguñ ñaw bi lifin xumb bugguñ ay jam bii simple yi la simple yu rafet a original yi xew xees xaw macha allah xoolal loxo bi ni mu guddee te rafet piis bi diis te nooy te rafet axaleen design yu baax yi rafet yi le rek axaleen dënd bi ni mu mel axaleen ko axaleen dënd bi ni mu mel caméra bi moo tax xam na yéen koy mën a gis gis ko waaye lii de borom moom ko war a tuuti su xamee ni man de du ko yam axaleen <clears throat> bouton yu rafet yi def ci loxo bi fii rangale ci bouton yi le ñeneenti boton rangale ko file mu sëppe rafet ba bugga dee ak i poosam mhm. ak poos bile yépp rek xëy man ni ma ko poñee sax géngéen ko xaw bi rafet na walla laa illa lii kay ku ko sol ba julli ji moom ci julli gi bala nga sol ko ba nataalu jànq boo bugg a takk moom fay fay tëb dikk fa lay koo ne la allo yaa ngi si julli bi de kañ ngaa ñëw takkama nga ni ko ah su ma la ko yow naa dama la bugg a takka nga xajaan booy xaaral ma def ko fële moom ma koy wane xaar ci kanam moom it ba am tubéyam ñoom ñëpp ba am tubéy ak lii si plain kolo yi la li ñawi design na la de du ñawi calaa calaa de gis ngeen biir si plain kolo yi la kolo bu sedd te rafet caméra bee tax man xam na dangeen ko mën a gis xaw couleur bu lee rafet na walla laa illa ñaw ba sempal aha ko loxo yépp yëpp a simple ba bugg dee te rafet xaftaan bu gudd la bii laa simple te rafet lii moom ku ko sol ci julli gi ba dugal sa téléphone fii boy booy doo ñëw ñu julli booy booy yow la ñaare si julli bi sax booy doo ñëw ñu lakka afra booy booy julli Europe kañ moom julli Europe dafa boorin booy lii su doon Gambia la booy bii de moo duut poos fa mel ni poos waaye bënnut waaye kii ab designer bu mag la lim lay ñawal yépp ay designer la seen nga ko dënd bi fii ñaw bu baax te rafet boo yow lan ngaa def ci julli bi xanaa doo ñëw suma side booy man maa ngi nii di seetaan sista boobu noonu ami jóob sista bu bari wax boobu booy booy sista bi bari na wax de booy kii lan mooy problème am booy nekk si internet bi di wax rek 24 hours booy caa booy sista bi dafa feebar maan aalen bi booy sista bu feebar boobu noonu lay seetaan booy parce que nekk si internet bi di xuloo rek di wax rek kii xanaa dafa dof booy aha laa illa ahanim rafete fañ ci def ab boton file xaw bii tam si taayili boppam la de laa bu la bu rafet bii ku ko sol ci julli gi bu la bi fa xem nag bu la bi duhut bu la bu bu saf ba ëpp comme bële bu la bu xem la te rafet waaye bii fa gàtt moom duhut xaftaan bu gudd ma ci suuf ci home yi lay xem xaw macha allah en ah, poche bi kii design yu baax a baax a baax la ñëw ay design yu baax a baax a baax a baax ñawkat yu mën a ñaw xaw ma ñawkatam yi Sénégal la lañ xaw ma macha allah moom it tubayam jaa ngi ni de ku ne ba China na ko jënd danaa ko ko yónnee ah waxuma China am China de mosuma yónnee bagage China waaye xaal laaxira sax ku fa dem bu ko jëndee ma yónnee ko ko maanaam ay Italie jamaneeg yooyu Amérique yooyu foo ci ne rek axaleen bu weex bi le rek taxawal ma dikk seen bind yi axaleen bu weex bi le rek ni te rafet te simple loxo bi guddul seen jam bañ ko jam rek jambu set ta simple ta baax xaw kii de ñaw katam yi xaw ma Sénégal lañ xaw ma danaa ko ko laaj de aha ko nam setee ta rafet masha la mu aha leen poos bi xaalis lañ ciy dugalam téléphone aha leen bi rek bii de góor gu ko sol moom ba def boppam nit ci julli gi le leen bi le tubéyam ji tubéy jaa ngi ni le moom it gudd góor gu gàtt bu mu jaaxle na ko sol bu fekkee tubéy ji fa gudd ba ëpp mu bank ko fa koy bank ni la rekk li bëxëñ ko ni ak gu nekk taalibe kenn du ko gis waaye foog naa ne xam na yu gàtt wax naa ko mu def different style waaye maanaam boo ci jëndee couleur boo xam ne te yow yàlla def nga gàtt nga bëxëñ ko kenn du ko gis xaw xale ni mu rafetee rek yëpp la ñaw ñooy professionnel xamee gañoo nijaay tekkee sa gaño gee tëdd jot na su na nijaay tekkee sa gaño gee tëdd jot na jërëjëf jërëjëf faam ñu ma ci mayaale sax ci vidéo yi de ay ah, yéen baax ngeen yal na leen yàlla fay ndax nit ñaa ngi bind bugg a jëndam laan taxawal ma ñëw seet leen taxawal ma jekkal yi te ñëw fa am yu des de dàmbaag yëre la dàmbagu feex la mu nga nele kees gaa nga nele couleur yi a des axaleen bile rek bu baraan bile jërëgéen jë axaleen bu baraan bile rek fa xam lifin yi xew léegi nii lifin yii xam tudd lifin bi ñuy lifin ni le weñ gi le génnee foofu génnee fii ba pare loxo bi mel ni loxo simis laa macha allah aha leen ñi ay design na yoo xam ne le ñoo raw tubaab yi ñi yal na leen yàlla defal jàmm seen liggéey bu baax bi le waaye aha leen aha rek xaw ma lii lum doon liñ ci def nii ci piis bi le lañ ko jëlee de ñëw ko mu set nag ta ta ta ta baax jërë ngeen jëf yéen ñi may saraxaale ci vidéo yi yëpp <laughs> yéen a tane ñi may xasta duñ ma sara dara <laughs> jibi doo fi dugg may jaay xalaatuma ko génnal génnal jibi génneel li ma yónnee noonu mu di ma yàqal suma njaay mi ne ci suma téléphone bi dindi ko dindi ko duma ma jël ninki nanka sax may jaay what the julli gaa ngi ñëw may jaay nga naan ngay dugg yow jibi looy jënd yaa nga Sénégal looy defee lii jibi duuma sa morom tukkul ba pare <coughs> ahaleen bile it bile it fii lay bu digg doomu bi la guddul gàttul dafa digg doomu xem ci ci ci ci yi noonu waaw mooy bu wert bi la jibi tukkul te seetaan rek yow jëndoo defoo dara ah jibi bu ma sonna ma mew xaalis waaw bii nag fa xem góor goo xam ne moom rëyut fa xem rek gune góor yi selem yooyu booy suma naka si loo nekka nag man jili baa ngi nii booy maa ngi nii rek maa ngi nii di lekk afra booy dama lekk ba soona sax booy boring ba bugga dee juli gaam juli Europe boy day wéet boy war naa am jabar de boy doo ñëw ma takkala am yu booy nga nekk internet bi di wax rek booy bii gudee góor ko sole si julli gi bay wax loolu fa ñuy rafet ba bugg dee aadi may jaay de loo bugg yow laa faatu looy bugg huh waaw ok waaye man xaw ma na xam naa coins si suma carte bi de coins booy passé boos xaw ma na xam naa ko xanaa nga dox su coins xamul waaw ok no problème tëjal la bunte sooy Fatou la mu dafay dem sa kër xaritam ba jëli xaw ma lan axaleen couleur bii moom couleur bii moos ku ko xam te yow nga jënd ci bii te bii benn couleur bi rek a ci des bii benn couleur bi rek a ci des bii naa leen ko woon yii yii mooy yu sénégalais yi yii Sénégal lañ ko ñëwee pire yii nag Gambie la moo koy jaay Gambie la ko ñëwee jigéen ju gëm boppam xame ab atelier du ñaw di jaay waaye jigéen ji xaw ma nag ndax njawkatam bi Sénégal lañ laajuma ko ko waaye bii moom Sénégal Dakar pire moom it jigéen moo ko xam moo xame ay ñawkatam di ko ñaw di di jaay ku jënd ci yii wala yii yëpp Sénégal ak Gambie ngay dimbale su ko defee may jënd ci ñoom di jaay gis ngeen couleur bu rafet bii xaw axaleen rek lii rek niñ ko jamee rek leen jam bu rafet bi la rek axaleen lii te lii fañ ko jam nii axaleen jam bu set bi la te rafet ni ma ko ngëwee baaxut ma koy poñe rek xaj kaw muy waaj a dee axaleen lii lii góor gu selem bu ko solee ci julli gile jànq bu xamul jabar jànq yëpp danañ ko nopp te bu xamee jabar jabaram dana def boppam nit tubéy ji fa gudd ah tubéy moom it fa gudd xamee bouton ba pare xamee fermeture mu ngi nii de couleur bi moom xaw ma benn la ci xaw ma ñaar waaye aka couleur bu rafet laa comme ça Sénégal la di toog ci seen télé yi wax rek aha ko ak kasa soxna ami yow dama lay gis ci ci ci ci ci tiktok bi ngay wax rek quoi dangaa bëri affaire de yow soxna ami mënuma waxi sénégalais bi mu ngi nii bile rafet ba bu gàddee léegi taxawal ma ñoo génnee ci jigéen yi yu góor yi ba tey ñu ngi des ñoom it yeneen yu weex ak yeneen couleur yi couleur yu rafet rek a baax aha leen yii yëpp laa aha leen yii yëpp rek yi couleur yi yu rafet ci yu góor yi laa yi koy moo ko toppee fii laay fanaan bi génne naa leen brown bi rek fañ ko jam axaleen ni mu simple te rafet lii gune góor yi yi buñ ko solee si julli gi axaleen lii rek la illa masha allah aka rafet loxo bi fa simple nag moom amul dara xaw ñëwkat yi le man de yëguleen ne ñëw fa ma neex ma ko war na jàng nag de waaye yembar te bëri waxta bugg lekk te tayal poos baa ngi ni la moom it gudd sa téléphone ba dugal ko ci Samsung one million sa xaj na si moom it fa diggu doomu gudd gàttu diggu doomu la tudd bii baraam bu rafet la moom it baraam bu rafet a rafet a rafet a rafet a rafet axaleen bii rek laa ay njaxasi couleur yi couleur yi couleur laa xam fi la yoo xam ne axaleen bula bi rek ni rafetee te sempal moom it <clears throat> man de sama baat bi fa mel ni ku ñuy waaj a jaale ndax maa xew woon tëddaat axaleen boton yi fañ ci rangale ay boton moom it def ko mu sempal nag laa xaw bi rafet na walla macha allah bi góor gu ko sol si julli gile ba julli ji ba ñëw mbala nga toog yaa sa jabar ngeen di lakk yàpp di waxtaan poos baa moom it jërë ngeen jëf bës leen vidéo bi te séddoo ko fa am kuy bind bind yu warta bind boobu bañ di ko bës di ko bloqué ka def yëpp ah ku ko dee jaale nañ ko man miy jaay fi ne lu muy war a bind di wax ci njaay mi may jaay bu leen faale nit ñooñu focus leen rek te seddoo vidéo yi te di ko bës aha yéen a ngi wax ne yéen a ngi bugg a jënd wala lan taxaw leen ma ñëw seet léegi tey ma ñëw seet maa bëgg ngeen gis yépp kenn ku ne bu mu bëgg ren na bës screenshot ko bëriwut de couleur yi different couleur la couleur boo si bëgg gaawal screenshot ko waaw bii ba yaatu guur gu xem ni man dana la xem gis nga ko moom it tubayam tubayam a ngi noonu léegi lu ngeen bugg rek su ngeen ma bindee dinaa leen ko won ci lifin bi dinaa leen ko jaay incha allah axaleen bii it bii light blue bu rafet lañu jam ko xëymantee laay leem ba dee su ma su ma xujjee lii yëpp may leem dee sama sonn te tayal bagage yi ko bëri jigéen yi laa la gumuk bii it beneen bu weex tàll la moom it ñu jam ko jam bu weex ak ñuul taxawal ma dindi ko rek kuy jaay rek du tayal tey man tey laay leem ba suma ndiggali damm te du ma xam ku ma ko bësal xaw ma taabal bu ma koy lal di leem ci su ci suuf laay lal ci darab di ko fi leemee noonu laa dee def moo tax ma dee tayal a génne yére di leen jaay ngay lal darab si suuf di leem bañ di la waaj a jaale te man xaw ma jëkkër ju may leemal yére xat yëpp miinu ma ko man ci sama bopp duma paase duma leem xat xat lay paase ah ko mu ngi nii fay ko jàmbam rafet jàmbu ñuul ak weex xamee poosam moom it poos bi mu ngi nii fii ak fii bii bënnut waaye bii it bu xem la pour góor gu xem góor ñi xem ni man duñ ko mën a sol de góor gu xem ku xam gu ne góor sax goo xam ne fa njool maa aadi danañ ko mën a sol lii aadi dana ko mën a sol bu doon moom la soo ku ci am teenagers bu dee góor yu njool yi macha allah jëndal leen leen bind leen ma ana leen bii nag bii moom su ma xamoon jëkkër jëndal ko ko fàtt ko ma jëndal ko ko jëkkër ju def boppam nit laa wax de bii ana leen ni rafetee rek bii laa illa macha allah te ak a diis te xam nga bitim réew bu mu diis nga soxla surtout Angleterre bu sedd gi bii fa diis te rafet gré bu rafet boo xam ne la daa gré boo xam ne te jam bi te baax aha ko lii ni soorooroy jumaa ja rek laa ay macha allah wala mbub mi ne loxo bi fa simple xamu dara ma ne kuy dugg nii kum do ab tubaab xaw ma <clears throat> du tubaab de foog naa tubaab la boo jëluma ko tubaab onot man duma mën a jël kenn <clears throat> may jaay aha loxo ba simple moom it fa gudd ba ci suuf góor goo xam ne moom a sut bum jaaxle lii fa gudd fi ne bay watatu waaw lii fi ne fu gudd bay watatu bu ma ko tegee fii sax mu ngi nii di watatu pour góor gu njool la waaw bul jaaxle seen nga ko seen nga ko guddaay bi laa bëgg nga gis ko téléphone bi waaye dafa difficile seen nga ko tubéy ji wóor na ma ne noonu lay mel tubéy yépp laa ko wax ne ko mu def ko mu gudd ndax daaw yeneen yére yi ma doon jaay fa xamoon ñu jënd ba pare di wax ne tubéy yi fa gàtt moo tax laa bii comme bële la waaye bu baraaw na comme bi ma la won nii exactly rek waaye bu baraaw na baraawn bu rafet a rafet baraawn mooy chocolat chocolat bu rafet a rafet a rafet xam xam crème tuuti crème lay lay la laaw ay bi it laaj la bële moom foog naa extra laaj la ndax xaw ma laaj ñoom ñëpp lañ ñoom ñëpp lañ dee bind nañ ko bale medium bii laaj xola bii couleur bi rek light blue bu rafet boo xam ne la caméra bee tax du ngeen ko mën a gis light blue la light blue bu rafet mooy bul bu la boo xam ne bu la bu xem la fa ni beneen bu bu ma leen njëkka woon na leen waaye fa guute soo léegi xaaral ma ñëw wan leen ñu jigéen ñi egee bu lay yëpp a wuute wula bu ma leen wanoon nii fa xaw a wuuteeg bula bi ak beneen bula bi mu ngoog taxawal ma wan leen ci yeneen ñaari bula yi tey rek laay lemba dee laa yeneen couleur a ngi nii ndeke xaw li yëpp ay yeneen couleur la xool leen bii it rek ni mu rafetee taxawal rek ma won leen ko yëpp benn yoon rek tal ta dees ma pare koo xam ne fa na bind suma numéro bi tam ngeen ko soxla ku xamee suma numéro bi ne ko bind ko ngir yàlla pour nit ñi su dee ñu ngi koy laajte aha leen bii rek ni mu rafetee moom it bii it benn rek la si couleur yi ma leen di won yëpp lu ci bari benn couleur rek la bu dul yépp sax foog naa yëpp benn couleur la jibi yow xaw ma looy wut mais jaay duma la mën a jël ku soxla suma numéro bi jox leen ko suma numéro bi yéen bu dee bu dee yéen ñi seetaan xam nañu ko ci xam xam na si yéen ñoo xam ne suma customer ngeen xam ngeen ko bii loxo bi dafa simple fii xam jam bu rafet moom seen ngeen ko rafet ta set macha allah moom it fa gudd ba si suuf xaftaan la mooy bile bii couleur bu rafet la seen ngeen ko bi fa mel ni lu xam little purple slash wine color ak cream color or something like that really nice color gis ngeen ko mooy bii bii itam XL la soo ku nekk light mun na koo sol extra light mun na koo sol leen bii rek bii couleur bi fa mel ni werte waaye werte bu lëndëm sa lipin kenn mënul la ko wax du loolu werte bu lëndëm de werte bu mel ni bu la ah couleur bi daal fa raar couleur bu laa laa xëy man tey lay dee raar waaw xool sénégalais couleur bu raar la te rafet werte la waaye dafa mel ni olive green ba different dafa xem moom it pour gune góor goo xam ne ku xem nga axal ñaw bi ni simple te rafet rek fa xalamee ni doomi taxal xalamee ni wert mais ni wert ak doomi taxal buñ jaxase xaw ak rafet masha allah laa lii de ku ko sol si julli gi tubéyam jaa ngi nii moom it leen bile bile fa nete ku bugg lu nete ana waa UDP <coughs> waa Ousseynou Daabo Gambi ñiti Ousseynou Daabo yi duñ jënd biiram benn bu nete rek la de nete te rafet te ñaw yi xew lañ ko def sax ñaw yi tubaab yi ñuy def lifin yi noonu weñ gi noonu xam nga tudd moom lañ ko def loxo yi mel ni loxo simis sitaay yu xees yi la pour gune góor yi xaw lii kay ku ko sol seenu weñ ngeen nii xola ñaw bi ni ko defee design ñaw bu rafet la weñ gi ngay dugal fii mu génne nii that's it si beautiful gune góor gu selem moo ko moom nag ku selem te góor ñi mel ni ami jóg góor ñu bugg lekk ñi bii duut pour yënd génn génn maasi aadi yi danañ ko mën a sol bu ne góor bu xamee ni aadi sax ne aadi dafa njool ba ma suuf sax axaleen beneen bu brown bii rek ni mu rafetee laa illa bi brown bu rafeta rafeta rafet la booy màngabaale tubéy ja tey rekk laay lem ba dee ma lemee ba dee taxaw ma jëkkër ji ma karité ma diggal ahaleen bi tubaab yi bañ ne ci biti xam nga lu ñuy defar su ma dëkkandoori ahaleen bii ni rafetee masha allah nu ni mu setee te rafet te enleen loxo bi moom it fa ko defal lifin weñ googu xew noonu beneen façon ngi weñam la ci def pare def ci jam fii ah bii rafet na walla a rafet talaa taraar masàlla ah, mhm. bii góor gu ko sol xam na nit ñi ñuy bës ñuy noppi de ah nit ñooñu de jaale nañ leen xam nga lu ñuy wax suma vidéo bañ di leen war a bëgg ñuy noppi vidéo bu borom di jaay lii la ñuy wax ci nit ñi fañ mën a a tooñ ta bon te buñ waxee ñu ne man maay tooñ fi ne li may jaay nii ku ma jot lu ma jotee nit ah man de nit ñi la jaaxal nañ ma <laughs> tubéy jaa ngi nii bii pour gune góor gu selem la gune góor yu selem yu sexy yooyu tey jaay xamadi su ma la ko yow lan la suma àndoo yow ma yab booy nañ jënd bi te def seen bopp nit génn ko rafet te loxo yi xew lii doo ko xamee fenn ci 85 pounds julli gi ñëw na jënd ko soppoon ma yàlla fay la gannaaw yaa baax yéen ñu baax te def seen bopp nit yëpp mu ngoo jënd leen soppoon suma business bi ndax baax mi du dëgg wax rek la owal oh aha bii it beneen bu sempal la kon bu simple ma leen wanoon beneen bu simple la mu ngi nii moom it bii it beneen bu bu mel ni doomi taxal la waaye doomi taxal bu bu ñuul la bu saf la ba ñuul aha leen ni mu rafetee macha allah grey kolo bu saf te ñuul te bii itam bii medium la lii sumool la sumool mooy comme beneen bu ma leen mujjee woon bu netee moom bii itam laaj la bulo bu rafet la buy génne xaale naa tubéy ja bii it bulo bu rafet la moom it laaj la xale rek lii masha Allah jëndalee seen jëkkër yi ku ci xam jëkkër ju doon it nga koy toppatoo de jëkkër ja bu jëndalul boppam nga jëndal ko yenn góor yi faalewuñ fa ñuy biisi di liggéey rek ngeen jëndal leen surprise leen bii fa diggu doomu fii lay xem seen nga fii lay xem fay rafet ba bugga dee yu diggu doomu yii so noonu la am na yeneen ñaari bulo bii léegi may ñëw wane jigéen ñi bii it beneen bulo bu rafet la taxem bulo bi xumbut bu baax safut bu baax fa mel ni bulo doomi taxal buñ jaxase ndax xaw ma bulo bu weex buñ jaxase waaye fa rafet moom it moom it laaj la laaj ak bulo bii mooy bulo bu saf bi bii bulo bu saf te rafet la moom it ana jamam bi moom M la medium M ok so léegi xaar ma ñëw leen yi jigéen bii xaw ma da wanoon naa leen ko bii si lifin yi la si simple kolo yi la simple kolo yi bii sumool la sumool mooy bu ndaw si simple kolo yi la moom it fa ànd ak poosam poosam a ne nii beautiful simple kolo yi ok mooy bii léegi xaaral ma ñëw wan leen yu jigéen yi yu jigéen yi comme yu ma dee jaay la rek parce que ñëw yi dañ rafet torop torop torop te du sàppee ñëw yi ñoo garaam bu ba xem duñ sàppee comme bi ma sol nii la de waaye bu ma sol nii moom léegi dafa jeex benn kola rek a si des waaye xam na différent kola yi bi mooy bu ñuulam bi yii lañ dee ñëwee Dakar xaaral ma ñëw seen nit ñi ko bind yii it jam bu rafet la jam ko mu koof ni le bii ni rafetee boo ko solee ba mu bàyyandiku nii nga ne allo suma nijaay xay janga nakam si loo nekka ah? fa am sipp te sipp gi ku ne lay xem ndax sipp gi ni bindoo la fay xëccu ku ne lay xem jërëgéen jë mooy bii te bi nag nga koy sol fukki at dara du ko jot gi nga bii fóot naa ko ba sonn li ba ma ko dalee jaay ak tey yàgg na ba ma xamee jigéen da koy ñëw Dakar ba tey yàgg na fa ànd ak musóoram musóor gu mel nii fa rafet ba bugg a dee xawma ndax fi ne naaj yi bugg a génn moo tax newu leen di ko gis caméra bi foo ko su waaye couleur bu golden bu rafet la gis ngeen ko golden bu rafet la gis ngeen ko mooy bii léegi xam na bu weex xam na different color xam na bu weex xam na bu bula taxawal foog naa yu ma génnee ñu ko fële bëgguma nekk di dajjee si paquet bi so yu weex yi mu ngi nii bugguma daaj yi ne si paquet ñaari façon ngi dënn la xam bii mooy bu ma dee sol pour di ko modele moo nekk nii tey ma koo solul rek xaleen jam bi ni mu feesee te rafet fàtte naa seet seen comment yi taxawal ma ñëw seet ko seen ngeen jam bi ni rafetee te fees te rafet te piis bi nooy te neex mooy bii beautiful ñaari façon ngi dënn laa am na dënn bi ak dënn bi dënn bi bañ ko def ak bën bën fii ak bën bën fii soo buggee sexy nga sol dënn bi you know sol sa badays di cos cosal origay bën bënn yi xalam wa nekk tuuti sexy subhanallah soo ko buggee ñemewuma ko man ñemewuma wone ween bot <laughs> su ma ko solee dama dee sol mbubb bu ndaw si biir mbubb bu ndaw bu weex wala bu ñuul waaye bu weex is better si biir soo ko xamee waaye su ma ko solee te solo ma bu ndaw si biir dama day nekk di ko puus puus puus pour mu pour mu nekk di wàcc di génnee dënd mi trop bot su dee faale ko loolu nga sol ko is sexy mooy bii nooy te neex te rafet nga ne ko xandu jàmm na ngeen def naka julli bi si loo neeka ah. ne la maa ngi nii rek jàngaloo toog gàtte yi eh. mooy bii ñoom ñëpp a xam seen sipa ak seen musóor bu bulo bi bu bulo bi tam is one of my favorite mooy nii mooy bii te yii yëpp different size lañ xaaral ma ñëw seet seen comment yi waaye bii moom size bi dafa nekk just medium ak large parce que moom ku nekk la dexeem waaye wax naa ko mu def ko medium ak laaj maanaam loxo bi fu mu koy tëjee nii xam na yoo xam ne dafa gën a dafa gën a tuuti pour soo sewee xam na yoo xam ne dafa xem pour soo xemee ni man wala nga ëpp ma waaye danga ko dee teppire yokk ko wala nga wàññi ko nga ñëw ko it's very easy oh my god ngëb ko sax laa nekk di ko décorer ya mu ngi nii bula bii xamul nu mu rafeteexut ndax bula bi ñawi design original bu rafet Dakar lañ leen dee ñawee yére yi seen ngëb dafañ leen jam-jam bu rafet ta set soo ko solee dana fii fee fay xar tuuti fii si kaw so sexy and beautiful comme bu ma sol nii rek bot bi different design la bi benn rek a si des right now waaye bii xam naa si fiiw ak bu weex bi ak bu ñuul bi xaaral leen bu ñuul ñaari façon yu ñuul la bu nga xam ne bu ñuul ak bu ak bu bu ñuul ak bu góol so bii nii te musóor gi nii te dafa am sipp si biir sipp bi ku ne lay xem mooy sipp bii ku ne lay xem la xem ñoom ñëpp ànd ak sipp góog yii day rafeta rafeta rafet ba nga xane no yii te grand mbubb lañ xaftaan lañ du sàppee fukki at nga koy sol jeex lu du yàqu ma seet euh, i man ba moo bu ñuul ba sa néeg ba again banaa bu ñuul ba sa néeg bu ñuul ba banaa ko sa néeg ba <laughs> ah? taxaw leen ma seet la si néeg bi laa ko ba wala si walis bi fii la nekk xaw dafa jeex beneen bu ñuul mu naan dafa jeex wala xam ne mu ci beneen wërib bi fële dinaa ko seet dinaa leen ko woon su ma ko gisee dinaa leen ko woon su fekkee ne xam na soo léegi bii mooy bu bi bu bi tam dafa rafet xam naa si sax couleur yëpp xam naa si bu brown bi dafa rafet ba rafetatut ak xam fii nii lifin nu tudd du nete de orange foog naa orange la tudd ci faanaaf ci kaw kaw ci suma làkk gi waaye fa xuuteeg orange de waa orange la mhm, orange la nete ak orange moo xam lii du nete lii orange la musóor gi nii la mel bii nim rafetee jam rafet moom it boo ko solee te piis bi du yàqu fukki xat boo ko fóotee mu mel ni tey bii fóot naa ko ay yoon te dara du ko jot soo boobu moo ne noonu bii mooy bu ma leen wax ne dafa mel ni comme bu ma sol nii benn bii rekk si des mhm. andeen xam naa yii léegi xaar ma ñëw seet seen comment yi soo yii ay robb la pour soma bi robb yi xoyof yi seeruñ sax moom robb yu xoyof yi pour soma bi you know nga sol ko di basax basax yi di sexy fa ànd ak musóor moom it basax basax di sexy naan sama nijaay loo bëgg ma togg xañ boo xamee nijaay boo ko xamuti nga sol ko yow kenn rek def sa bopp nit mooy yooyu ay couleur yi couleur laa si xam xam naa si couleur boobu ak couleur bii ak yeneen ñaari couleur ndax xaw ma xama pompe bi ndax gune yee koy ubbee ndax dëkkandoor bi la xam mën naa am dëkkandoor yi la seen néeg mu ma yéen ana baat ba ma fu baat ba féete waa fii la féete baat baa ngi nile ma sonn te xiif oren bi tax newuma ci xoor na sama gi fa dagg waaye lekkuma ko miinuma xëy lekk ndi xoor gi balaa xoor gi sax miinuma xëy lekk waxtu wi laa dee lekk waaye maa ne woon duma lekk may continuer di xoor xooram ngalaw rek ndax wàññi yaram dinaa ndox xaw ma ndax danaa ko mën a ndéet ñaanal leen ma bii ni mu rafetee rek te nooy te neex waaw ku ko jënd te des sa bopp nit surtout booy sëy sa jëkkër dana la gën a fonk caq yi xam naa ko caq yi taxawal ma jël toogu te xaw ma delloo yére de bu demee muy xale aadi ni mu leem rek la tayal waaye Fatou comme may dimbale de ndeysaan di njox ñoxi soo jaaro yi mu ngi nii ana ngeen faa am ko bind na fa bugg def sa bopp nit <laughs> turu def sa bopp nit nit ñi duñ ko nangu ñun ñëpp du ko nangu billaahi li kay so um what was caq yi ñu ngi nii man ay fer sax ma koy jaay waaye li ma ci xamee bëriwul weeru koor wi da jarul wane ay fer de waaye faa ñoo xam ne lu ñu gis rek di cot cot mooy problème bi yàlla fa leen nattoo loolu mhm. fu ñu toll di cot cot ni ay bëy yuñ jaale aha lifin bi caq bu gàtt bi fa rafet moom it ba bugga dee xam naa ko ci njaay mi moom it ak caq yu guddi xam naa ci different color yu mel nii xam naa ci ànd ak per ak yokkane xamut per caqi cosaan yi ku ci bugg te ku jënd ma yére yi bu dee jigéen la ma lay may jaaro yi de jaaro cosaan nga bugg wala yeneen jaaro tubaab yi ma dee jaay sama jaaro tubaab xaw ma yeneen jaaro yi su dee góor nga man laaj na dangaa bëgg sungu buy na wala basaab basaab nga bëgg wala sungu fi buy wala mbor mbor wala tenkilibaa boo ko buggee wala minti baal la géey bi boo ci bëgg rek ma defalaale la mayaale la loolu it ma koy def de may maye de ku jënd de sepp it xam naa ko sepp baa ngi nii xam naa ci ay banti sepp mu ngi nii waaw ku jënd su defee boppam nit su bëggee sepp ma defal ko ci taxawal ma seetlu ne ndax ngeen a bëgg borom su fekkee ne jënd na su dee jaaro yi la bëgg jaaro cosaan yi ndaw yi su dee yooyu la bëggoo mayaale ko te bëggul jaaro tubaab bi naa ko ci defal yii waaw ku doon laajte numéro bi na xam na ko kuy jënd kumdo kuy jënd kumdo man dama ko bëgg jërë ngeen jëf faam ku doon laajte numéro bi ndax yéen ñëpp kenn jëndul allo Penda you are so hilarious <laughs> ku jëndul léegi dama ko wax naa ba su ma gémmiñ ngi mee ni ruy bu dog mel ni cuuraa bu si butu ndég mentalaatu ma ci diwoon maa ne ku laajte numéro bi kum do xamaj dafa des si yow ban nga bugg a jënd dafa xam yoo xam ne eighty five pound la xam yoo xam ne eighty la xam yoo xam ne seventy to léegi yow yaa mu war a wax ban nga bugg moo tax ma ne la boo si bugg nga koy nataal xef yi xef yi lan xef yi ma ko poose bi ma ne may nit nit lu di nit tubaab bu si but fa dëngati fa mel ni de <coughs> hi price waaw borom dafa waroon a screenshot mu won ma mu wax ma lu mu bugg price is from 85 pound si yeneen yi yeneen yi ma la woon yeneen jam yi yeneen yi lifin yi um, jël laaj yi wala extra laaj taxam jam yi mooy 85 pound and then yeneen yi 75 yeneen yi 80 sorry yeneen yi so it's like that 85 pound 75 pound and um, yu góor ñi juróom ñaar xam na yokka ne juróom ñaar yi na xaw ma ñett si yi ma leen won yokka xam ne fañ leen jam mu ni soorooro te yooyu extra laaj lañ extra laaj mooy L L maanaam bu rëy daal yooyu mooy juróom-ñetti fukki pound ak juróom yeneen yi juróom-ñetti ah fukki pound ak juróom la ak juróom fukki pound waaw ñaar fukki pound ak juróom-ñaar fukki pound ak juróom mooy yi ci ëpp yëpp. I based in Scotland am not in London but I can post it for you next day delivery you get ku dëkk Angleterre Germany fu mu dëkk danaa ko ko post te xaalis bi ngay fay post bi si la bokk parce que soo posté dafay seer soo dëkkee Angleterre it's not that bad dafa des si lan nga jënd waaye su dee yaa ngi dëkk ay Germany yooyu post bi dafa seer like it's crazy soo dëkkee ay Germany yooyu moom danga fay at least half man ma fay lu des waaye soo dëkkee Angleterre free naa la ko poos ay Belgium yëpp di same xaw ma xaw ma pause bi ñaata la foofu si yére fàttalikuwuma ko Belgium pause naa fa waaye xaw ma ndax këpp laa pause woon ndax yére fàttalikuwuma ko mhm. waaye su fekkee ne dafa seer daal poos bi dafa seer ba nekk ay ten pound au moins bàyyi foos nga fay xaar dama la ko dee wax su ma demee foofu noonu su ko defee yow gars yi waxal ma ma wax la ñaata la mhm.

loolu mooy numéro whatsapp bi I sell African clothes like this one I'm wearing for women I have them in different colors and different design for the chest and I have the male ones like this for example I have blue, white, black. The other one is black and gold on the chest and different colors on this one. And I also have guys haftan. This one is 85 pound. 85 pound bu jigéen bi yii juróom-ñetti fukk ak juróom pound la juróom-ñetti fukk ak juróom pound 85 pound. am ab picc bu ne suma xarxanam bi de mhm. but one some are 70 some are 75 and some are 85 thank you create a popular live broadcast room and create a black technology drag knack what's drag nag drag nag don't know what that is what is passing saying so yeah uh, no it's not too much at all it cost me a lot of money to get this here and to get it done i get them all done by professional people and the professional people they're cheap Even if you want to pay them, they're not cheap. Even if you are in Africa and you go to professional tailor, they're not cheap. ñëwkat yi ma dee use ki nekk Dakar ki may ñëwal professionnel la ki nekk Gambia ki ma ñëwal ni professionnel la professionnel ñëwkat yi tamit du ñu yomb de waaye su dee bëggoo jënd si man nga ne loolu dafa seer nga dem jënd feneen léegi yow soo demee jënd Afrique ñi nga ñaw ko ñu yónnee la ko ba tey xaalis la li li li liñ ciy dese ci weccet du bëri te ba pare weccet woowu da nga koy lekk ba tey ci lu ñàkk fayda soxoot bu la jaralee nga ne doo jënd si man lu weccet woowu ba léegi bu desee ay 20 pounds ak yooyu li ngay desal boo jëndee Afrique ba tey nga koy dugal si lu ñàkk fayda nag xaddina noonu la yàlla daf la dee nattoo noonu soo dee soxote nit ne duma ko jox lii nga koy génnee ci lu ñàkk fayda surtout bu dee xaalis la wala yàlla nattu la leneen nga nga nga def ca xaalis ba te fekk natt boobu waroon naa ñàkk am ku noonu la dee def waxuma ne yow ngaa soxot de xaw ma na ngaa soxot wala ngaa xamut waaye xam nañoo xam ne day soxot mhm. ñu la gisee man dama dee jënd si nit ñi nag de laaj ma nit ñi danañ wax su fekkee may fenn man nit ñi day jaay fii Edinburgh dama dee jënd si ñoom even su may jaay li ngay jaay sax dama dee jënd si nit ñi dee jaay abaya and stuff wala nit ñi dee jaay robb wala nit ñi dee jaay ay different thing laajal nit ñi jaay fii xat yi yëpp dama dee jënd si nit ñi mhm. parce que nit ki su fekkee ne yow xalaat nga ne su ma jëndee li Afrique moo gën a yomb sax weccet bu ndaw moo si dee des gannaaw boo ko jëndee sonn si ba bugg a dee lijjanti ko sonnal ni ñu Afrique ñuy dem di jënd di poos weccet bu ndaw moo si dee des waaye xañaan boobu jaral na la ko wala nga nga nga jaay nay waa Aja ba léegi xaalis bi danga ko génnee <laughs> xaalis moom ba foo jaar nga génnee ko man on not <laughs> kii de xama kumdo me I'm in UK Scotland so it's like that ñu bëri dañ dee oh, lii dafa seer waaye yow soo ko jëndee Afrique ba mu ñëw weccet bu ndaw ngay dese ba pare xaalis bi dafay dem ba tey I have some lessons uh, I had uh, have some lessons too but I'm not gonna sew them now next time I have so many clothes that I have to fold already so xam naa ay grand bu mbeseñ tamit but dinaa ko wane beneen yoon te moom li ma xam pour leem rek doy kii de xaw ma kan la maa ngi koy jël sa waa xam naa fa yàgg di ami say xef la <laughs> xef yi lu ko dal mu naa ami say xef la xef yi ne noonu ñu rafet ba denga nga naan la sumay xef lan la sumay xef xef la yow gis ay xef soo noon la gaay numéro baa ngi noonu su ngeen pare ngeen xaw ma man dina damay dem du yàgg sax ma leem yére yëpp damay def video bu ndaw also about yére yi ma ko bala ma ko leem xaw ma ne xolof yi ngay wax xaw ma kii la xamul lu wax suma xolof yi lan lan lan so it's like that guys koo xam ne gis nga si video yi boo bugg danga koy screenshot léegi video yi su de raw na leen danaa ko si YouTube bi suma pare ngeen dem foofu ngeen gis ko koo xam ne gis nga si benn si vidéo bi nga nataal ko screenshot ko nga euh, numéro bi danaa ko def si vidéo su ma posté vidéo bi comment section bi su ma posté vidéo bi YouTube incha allah comment section bi naa fa def suma numéro waaw koo xam ne gis nga mbub moo bugg nga nataal ko screenshot ko yónnee ma ko ci euh, si si whatsapp bi ne ma bii laa bugg su ko defee ñu wax noo koy fayee di nga mun a fay PayPal cash app mbala uh, bank transfer wala western union waaye western union dafay seer de na waaye soo nekkee ay jaamani ak yooyu ba tey di nga mën a def bank transfer waaye bank transfer foog naa def dee jël ñaari fan yooyu bala ma ko jot su ma ko jotee naa la ko wax su ko defee man ma puus la wala nga def paypal soo dëkkee ay jaamani yooyu mën ngaa def paypal wala nga def cash app foog naa jaamani xaw ma na cash app dafa dee dox cash app is very easy but yeah place yooyu nga ma mun a fayee su ko defee ma yónnee la ko ok guys thank you so guys if you want anything that you see here you have to screenshot what you want and send it to me I'm gonna make a small video after this live video and I'm gonna speak in English and I'm gonna show the clothes for people that don't know what I was saying. So if you want anything that I'm wearing, this one is only one. I got only one left. And I have the earrings in different size. I have this small one and some that are little bigger than this. And then I have these big ones. But I think it's only one of these big ones left. But I have the necklaces that comes with um, the bangles and I have different of those necklace and they all have their earrings which is this one that's the earring for it and that's the bangle for it this is the short one then you have the long one the long also different type and they all come with their bangles and their earrings. The earrings are like this, but you don't have to have them big. You can have them medium like this or small. This is the smaller version of this one. Okay, guys? So, yeah. Just let me know which one you would like and screenshot it. I'll tell you the price. I have this one too. different ones beautiful koo xam ne da nga bugg si caq yeeg everything nga wax ma dégg nga maa ngi ñëw dem leemu yére I have these earrings too these ones too they both handmade from Africa this green this purple this yellow. And then this one is like the one I'm wearing, you know. So you can buy the earrings if you want, just the earrings alone. Or buy the set. This is one of my favorite from the sets. Look at the earrings for it. It has some shiny I don't know whether you can see they're just beautiful guys. So um, and some of them their earrings are like this, they're plain. So don't worry if you don't like that red part of it. Some of them their earrings are like this, plain and beautiful. So yeah, guys, let me know which one you like. Screenshot it and let me know. Lu ngeen gis bi lu ngeen bëgg na ngeen ko nataal. instead of the earring, how much are there? Oh, interested. Yeah, the earrings. Do you want the whole set? Or you just want the earrings alone? Like these ones I was sewing. Or do you want the set, which is the necklace and the earrings and the bangle? You have tell me because they're both different prices. So the earrings alone, they're just six pounds. The set is 35 pounds. So yeah, guys, I'm do doing sale. I'm trying to get rid of everything that I have in the house. And this is Ramadan. That's why I'm bringing prices down so I can also have some tiabo. So yeah, let me know. Screenshot whatever you want. Natal leen li ngeen bugg seti chain bi bu ànd ak jaaro bi ak lii bi yëpp fanweeri pound ak juróom fukk la léegi euh, bii nii mooy juróom benni pound you know wala soo buggee jaaro bii nii tam you know jaaro bii bu dee bu rëyee nii la boo foog naa benn rek asi de boo fukki pound la yu ndaw yi yu xem yi mooy yi ma leen wonoon fii mooy juróom benni pound ok soo yee lu ngeen bugg ngeen nataal ko screenshot ko ngeen yónnee ma ko postage UK UK postage is just like two pound or something if it's the earrings it should be put two pound or less if it's more than that I'll it should be two ninety nine or something if if you buy the whole set and you live in the UK. Mm-hmm. But if you buy the dress and you live in the UK you don't post it I'll post it for free. ku jënd si yére yi te nga dëkk Angleterre man maa la koy postal free. so don't worry prix prix bu ma leen di wax noonu dafa ànd ak post su dee Angleterre nga dëkk su fekkee ne benn yére nga jënd waaye su dee ñaar nga xam ne dafay gën a diis nag mun ngaa def half ma def half ok waaw anything rek ngeen waxal ma dama war a ñëw dem my number is there I don't know if you have it if anyone don't have my number they should email me my email address is above but I do comment my number I commented my number earlier on but if you don't have it you can email me the email address is above I think it's still above I don't know because I put a link there a GoFundMe link is there I don't know if I think I get rid of the email address to be able to fit that Go GoFundMe link. The email address is just my TikTok name and at gmail.com. amiolof at gmail.com. koo xam ne xamul suma numéro bi na ma email amiolof gmail.com amiolof gmail.com <laughs> so ma email it if you are seeing this video from YouTube I'm going to put my email and phone number on the link on the comment section. koo xam ne yaa ngi gisee vidéo bi YouTube suma email bi ak suma téléphone number bi danaa ko def si um, comment section bi jërëgéen jëf thank you jërëjëf koo xam ne nag yaa ngoy gisee fii suma email bi ak téléphone number bi léegi laa joxe téléphone number bi waaye so ko bëggee naa la ko joxaat email bi mu si kaw xaw ma nag because dama fa def link GoFundMe link jigéen bi soxla ndimbal noonu te nekk Gambia ku ko mun a dimbale nga dem GoFundMe ko dafa bitim réew te xamul xaalis te feebaram bi su su demut ñu faj ko du baax boo xoolee nataali GoFundMe boo cliquer link boobu daal la woon GoFundMe bi da nga gis nataal bi da nga gis feebaram bi nim la fa daw yaram dafa daan liggéey si lopitaan bi di dimbale nit ñi feebar bi dal ko ay xat juróom-ñetti xati yàlla dem na Sénégal faju ji ba sonn opéré nañ ko fa ba sonn mënta wéet GoFundMe link bi mu ci suma kaw um, bio bi soo ko bësee rek dina la indil GoFundMe da nga gis nataal bi danga gis li ko dal yëpp moo tax suma email adresse foog naa neexatu fa léegi because GoFundMe bi ma ko def waaye xaw ma waaye email bi ami xolof at gmail dot com ok so guys I have a GoFundMe link above is for one of the lady that need help in Gambia she really is like depending on this her life depend on this GoFundMe If you click the GoFundMe link, you will see her pictures. You will read her story. You know what I mean. And this woman was a nurse in Gambia. She got sick over eight years ago, or about eight years since 2013. She's really